leen li gën a fës dina ci bokk téeméeri fan yu ñu turee mi Bassirou Diomaye Faye jàppale na nag gaaw gi eh, bu rek juróom-ñeenti waxtu jotee ci guddi dina jàkkaarloo ak yéen ci taskatu xibaar ngir rek séq ak ñoom waxtaan laaj ak tontu ci seen diggante juróom benn organe de daal di tànn ngir nag ñu daal di teewee boobeek xew-xew su suñu micro denk nañ ko nag ñoo xam ne dañ yëngu ci wàll wi nee daal mënoon nañu gën a yaatal yëf yi nag daañu leen déglu ci jotaayu xibaar yi addu jëmale ci jàmbaarlaw yi nga xam ne nii am na ci diwaanu marché Sandaga jàppale leen ni ki tey dakk dare ñoo fa daal di ngir nag ñu jëmal ndogal gi bépp marché ambulant rek bañ a lal fa ñu ko daal di jëlee ñoom ñe nag nee nañu fi mu ne ña ngay xaari saafara nara bawoo ci préfet bi addu jëmale itam ci Sénébar bi ni muy wëlee ñaay ci Sénégal ONG Jamra di ko rek métit lu buñ sukkandikoo ci Mame Mactar Guèye état bu Sénégal dafa rekk gën a nag métit ati kaso yi nga xam ne rek dañ ko faral di nag daan ñi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllum drogue ONG bi nag may xaar ca na mu gën a gaawee ñu jëmal euh, waxtaan wi nga xam ne daanaka tënkoon nañ ko ca dem ñaajoo ñeel ni ñuy def ba indi coppite ci wàllum yoon loole itam nekk na lu ñu cay euh, xaar daañu waxtaane itam ca parlement bu CEDEAO Guy Marius Sagna ràññeeku na ci ginnaaw nag la nga xam ne rek fësal na ko laxew ca Guinée nan daal waaye dama ñaar yi faatu woon nag ginnaaw coup d'état loole loolee war nañu ko leeral waaye itam fàttewut benn yoon la xew ca Libéria bëgg CEDEAO nag am ak taxawaay guñ ca daal di def fa mbokk yi ponk yee gën a fës ba leen taaxirloo ñu faram fàcc ko jaajëfal leen bu baax a baax ci teelu bi ànd bekk 7TV dañu koy tàmbali ñu ko dunjee woon a sànq ci bopp bi téeméeri fànn bu ñu turee mi Bassirou Diomaye Faye ci na gaawu gi ci guddi bu juróom-ñetti waxtu jotee day jàkkaarloog taskatu xibaar yi seq ak ñoom laaj ak tontu ci li nga xam ne la yore réew mi juróom-benni organe de presse lañ ci daal di o waaye nag bu sukkandikoo ci ñeen ñi nga xam ne ñëngu ci wàllum tasum xibaar seen gis-gis daal moo di yëf waroon nañ ko gën a mën a yaatal ànd ceeg Ousmane Ba ci janoo bu njëkk bi muy amal ak taskatu xibaar yi kii di président président Bassirou Diomaye Faye nag topp ci tànk régime yi fi weesu maanaam di tànn ëtt taskatu xibaar yi nga xam ne moom lay amal ndaje boppee kii di Ibrahima Bakhoum jàpp ne donte sax faw mu tànn waaye li mu tànn néew na lool. bu fekkee da koy yemale ci ñaar ci ci juróom-benn yi ah nu mu demee ndax da nga ne ñii ñoo mun a jote li ma bëgg ah bu boobaa njuumte am na parce que xam naa fi ay télévision. xam naa fi ay yeneen organe de presse ay ay rajo ki journaux yoo xam ne ci seen baat mun naa sori mun naa ko fépp te am nañ expérience débat politique bu fekkee da ngay joxe conférence de presse na gën a yaatu nii lool ci wàllu ñuy bokk waaye nag ñëpp mënuñoo bokk ñëw déedéet mënut a am. naka noonu muy jaaxle itam ci ñàkk teew yenn ci ay taskatu xibaar yu am dayoo. am na koo xam ne dégguma ko ci te ku ko mu jaaxal na moom naka ñàkk ci mën a ñàkk dégg muy soleil le soleil moom ñàkk ci nekk mënuma ko comprendre ndax. soleil APS RTS dañuy wax ne ñooy médias yi d'état yi waaye boo déggee jox média médias mooy yi nga xam ne xaalisu état bi donc la l'argent xaalisu contribuable moom moo fay dem te it kenn ku ne war nga wax ne kii bokk nañ ci. kii di Birahim Touré doon taskatu xibaar itam di xamle ne lu ni mel warul jaaxal kenn ndax yàgg na fi waaye nag taskatu xibaar yi war nañu booloo ngir fexe ba beneen yoon tànnin bi gën a yaatu. c'est bien pour waaw loolu baax na ci promotion organe de presse yi waaye tamit ñoom kër yéenekaay yi tam ci euh, lu leen ñeel dañoo war am doxalin bu nga xam ne day tax suñu njiit yi bu dee dañu soxla taskat xibaar yi ñoom ñu mën a xam ci kuréel boo xam ne kat ci foofee daal la mën a jublu ku ci nekk gi ci sa bopp. ak lu ci mënti am ñoom ñaar ñuy xam ne ëttu taskatu xibaar yi donte sax woowuñ leen ci ndaje bile war nañu amal taxawaay bu responsable maanaam jàllale xibaar bi ci anam yu mucc ayib te bañ ko boycotté. des ba tey ci téeméeri fan yi nga xam ne nii Bassirou Diomaye Faye yore na ko nguur ak Sénégal jàppale ne nag secrétariat exécutif bu APR bind nañ ci bataaxal ñoom itam joxe ci seen xalaat jàpp nañ ne daal li nga xam ne moom lañ mën a gis moo di ab njiitu réew woo xam ne daal dafa rek mel ni lu làqatu ilmaani jóorinam ne ca kanam di def rek lu ko soogee loolee nag daanaka moo lu ñu fësal waaye itam taxaw nañ ci déclaration de politique générale bi nga xam ne ilmaani jóorin nga ñu ngi koy xaar ci pencum ndaw réew ma ak coow yu ci juddu jàpp na daal du dëgg du yoon lu ko war rek moo di dem foofee wax naag naka lañ fas yéene yoree nguur gi ci diir ak juróomi at. Alliance pour la République euh, di fësal ni ab tënk moo fi am njiitalu réew mi Elimaanu jëwriñ moo ko daal di tënk ndaxte kooki euh, moo jël aaki moo lépp secrétariat exécutif national bu boobule alliance euh, di woy di xamle ni bañ fi daal di jóge jéego yu am solo amaloon nañ ko gannaaw gu régime bu bees bi amoon ndam ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mars biñ génn yu bari ñoom ñooñee di waa appaire jëmmaloon nañ ko fi loolee nag dafa waroon yomb ci njiit yu yees yi ndaxte Sonko ak Jomaay dañoo waroon sukkandiku ca boobu boobule projet ñu xam ne ni ndoxte lu Sonko ak Jomaay daanaka niñ ko foogee woon melul noonu ndaxte élimaanu jëwriñ ju Ousmane Sonko li mu digle woon ca élection yi ba léegi amalu ci dara li ci mujj moo di ba mu waree amal déclaration de politique générale ca assemblée nationale leneen lu ci a yokk reddition des comptes leneen wundu lu dul bëgg leen a sàkkal pexe li Sénégal daal di am pétrole gaz ak ñoom seen dafa waroon rek yombal liggéey bi wante nag mu mel ni Sénégal xamuñu fu ñu koy yóbbu loole le bureau politique bi daal di xamle buñ sukkandikoo ci ñoom nag li ni mel mënuñu ko nangu naam nag Ousmane Sonko noonu la mës a mel APR di woy rek di xam ne nii projet bi ñu jaayoon sénégalais yi ba léegi nag dara fësagu ci moo taxit Sénégal bougé wul maître Alliance pour la République di woy rek di woo seen àndandoo ñu gën a taxaw temm leneen lu ci sof moo di ñuy woo Ousmane Sonko mu daal di ñëw eh, jàkkaarlook ndawu réew mi ngir mu daal di àddu ci déclaration politique général bi mu war a doxalee. Dame Dieng gisagu ko noonu moom nee na daal bilan wi mën nañ na daal lu mën na xel dal la ndax daal lañ fi defagum ci ay jéego ndax naka mën nañ ci daal sukkandiku ngir xam ne fii ak juróomi at nguur gu yees gi daana def naka loo xam ne lu ko askan wi di xaare satisfaction lañ ci am ndax téeméeri fan du sax bilan mais ay actes yu mu posé la parce que téeméeri fan barewul se trois mois ci téeméeri fan yi bu mu yegsee wàññi na taayu gouvernement bi wàññi na taayu ministre conseiller yi wàññi na dund bi lu mat 53 milliards mu def ko ci mu jëm ci ceeb bi jëm ci mburu mi jëm ci dëwlin bi yokku na budget bi jëm ci mbay mi lu mat 20 milliards mu nekk 120 milliards pour nit ñi mën a am engrais mën a am am jiw fay na bor yi nga xam ni état ameloon na ko hôpitaux yi ci CMU bi lu mat 10 milliards pour que hôpitaux yi mën a jël en charge li nga xam ne donc mooy mooy maladie donc ci secteur bu mu mën di doon def na jéego yi am solo ku ne xam nañ nekk ñoon ci pays de droit avant muy nekk pour président depuis mu ñëw def assises yi tënk nañ document boo xam ne bu ñu ko appliqué sénégalais bi dina sentir ni mu ngi nekk ci pays bu am droit pays bu am sécurité mi ngi ci yoon bu baax a baax boo xam ne du man maa ko wax parce que dama ànd ak moom mais sénégalais yu bëri wax nañ ko ci moom ndax ci doxalinam ci comportement ci espoir bu ñu am ci moom ak ci li nga xam ne woon nañu ko ba tey ci xibaar yu ñu jagleel wàllum politique ginnaaw nag alliance pour la république lajjee ci joŋante njiitu réew yi jàppale ne nag parti wi nag moom jot na rek mu xoolaat boppam xool mi dëggalee nag taxawaayam ci biir aw ku jëkk yi waaye nag li mu seetlu am na lu bari ñoo xam ne daanañu génn ci kuréelu politique googee tekk seen ndombal tànk te loolee nag mun na am ay njeexital yu doy waar ci parti wi ak na muy doxee muy jàngatu moom di Albert li APR ñàkk ci jongante falum jiitu réew ba atum 2024 ba tey ñu bëri ci seen i ñooñ mënuñu ko nangu. APR défaite bi euh, moo tax ñuy dem am na ñi nga xam ne nangu nañu seen défaite nangu nañu toog ci APR nangu nañu Macky Sall jiite leen mais am na ñi nga xam ne ñoom seen xel dalul ndaxte lu euh, ñu bëri dañu yaakaar ne seen président Macky ci défaite bi ci la bokk. ndax jàppalewul Amadou Ba comme ni mu ni mu ko waroon jàppale. mu mel nii li daloon na parti socialiste gannaaw bu mu ñàkkee nguur gi ci atum 2000 ak PDS ci atum 2012 mooy waaja a dal parti pour l'alliance de la république. am na ñi nga xam ne aussi que ñoom euh, ñu nekk ci opposition amuñu euh, tempérament nekk ci opposition parce que dañu yaakaar ne que nguur bu bees ñëw na xëy na dina toog juróomi at wala fukki at. Euh, du ñu am moyen pour nekk ci opposition mooy les transhumants. Ah, bu ñu sukkandikoo ci du Sy Albert kilifa yi nga xam ne ni ñoo ngi jóge APR ci jamono gi du doon njëglaayu parti bi. bon xamuñu aussi euh, élection bii di ñëw ba est-ce que l'APR dina nekk parti majoritaire donc am na ñi nga xam ne dañuy seet comme naka la ñuy positionné. pour ànd ak opposition bu gën a dëgër. mu jàpp ni gannaaw ñi nga xam ne ni jóge nañ fa bu ci Amadou Ba tegoo mbir yi mën naa gën a ëppi loxo. su fekkee Amadou Ba génn na APR am na ñu bëri dañu yaakaar ne que amadu Ba. mën na jouer un rôle euh, principal dans dans l'opposition. APR jëloon ñaareelu place bi ci joŋante falum jiitu réew mi ba tax na Mamadou Sy Albert jàpp ni mën nañoo doon njiital ku jéggi waaye ci kaw ñu waxtaan ba jubbo ci tënk Aliou Sall di rakk ci Macky Sall ni ki tey jii doon na jàkkaarloo ak yu féetewoo ci RFM di Babacar Fall moom may nag am na li mu ŋàññee ña nga xam ne naataangoom lañ woon bokk ci parti bi di APR ginnaaw mi tekki ndombal tànkam nee na daal ñu ci bari nag moom dañuy liggéey rek ngir Mansour Faye ngir rek mu gën a mën a nag samp xalaat gëm fa bëgg bokk ci gën a dëgëral nag njabootu Faye Sall ci parti wile moom may nag daal na joxoñ baram tuma itam yéen ci kilifa politique ne daal fi mu ne waxtaan ak régime bu bees bi bu ko defee rek ñoo mën a am ay post ca député wa waaye tax daw yenn ci ay mbir yoo xam ne day ñeel wàllum yoon na jàngatug bés bi itam day taxaw ci parti bi di APR nga xam ne daanaka moo jël ñaareelu place bi ci jongante ñu ci réew ñu génn laaj googe nga xam ne laaj nañ ko nag moom ngir ñu ñëwaat day xaw a métti loolee di gis moom di si Albert waaye nag ah, fi mu ne ñu bari ca ñoom ñu nga bëgg taxawaat rek ngir jàkkaarloog nguur ak Jomaay ak Sonko waaye loolee daal buñ sukkandikoo ci jàngatug bés bi mën a nekk lu xaw a jafe ndax kuréel gii nga xam ne moo di Pastef fi mu ne nii taxaw nañ temm fas yéene bañ a deltu ginnaaw déclaration politique bu mujj bu alliance pour la dafay jëmal taxawaayam ci kujje gi ñu sumbub xeex jëm ci jëlaat nguur gi APR di nasi pexe ngir dëgëraat boppam ginnaaw defet bi nga xam ni jël na ko ci njeexitalu jongante yi 24 mars atum 2024. Alliance pour la République di dajalewaat njabootam donte ni bëri na ay wuute yu ñu nemmeeku seen biir loolee nag ngir waajal jongante yi législative yi nga xam ni moom lañu lañ la waaye laata loolu APR mu ngi woy di attaqué nguur gu bees gi rawatina ci 100 jours yu président Bassirou Diomaye Faye yile ak premier ministre Ousmane Sonko. njiital gouvernement bi ñu koy teg pression ngir mu teew ca pencum ndawum réew ma ngir amal fa déclaration de politique générale ma APR nekk ci rôle ma mu di parti bu njëkk ci kujje gi diggante républicain yi ak patriotes yi dana tàng loolu ci juróomi at ñuy dëgmaal ku ne di laaj sa morom bilang kii di fësal rupture kenn ki di fësal alternance républicain yi nga xam ni yor nañ nguur gi daanaka 2012 baatum 2024 patriotes yi ñoom fasuñ yéene def lu yées loolee tax ba débat bi daanaka tar na lool waaye dafay rek dëgëral li nga xam ni moo di démocratie Pastef faw rek mu tontu ci laaj yi ñu koy laaj mu di loo xam ne du yomb benn yoon waaye wareef la ci njiital Pastef rawatina ñi mu feggool ci coalition Diomaye Président dañuy wax ci jàmbaar lañu ñu féetewoo ca marché Sandaga dox ci marché ambulant yi ak yenn ci agent yi féetewoo ci mairie bu Dakar Plateau ni ki tey ji nag takk der ñu ci daal di sóob seen loxo daanaka wàcc foofee tere leen ñu daal di laat seen ay bagage ginnaaw bañ leen fa toxalee waaye marché ambulant yi nag bi la yoon dëgërlentu ñu bopp dañoo rek taxaw nag yaa yaakaaral ci googee dëgg jàpp ne daal ñoom ñee la ñuy xaar moo di ay waxtaan yi sumb ko ak sous-préfet bi dal xaw na am tey jii fii ci rond-point Sandaga ay waxtu gannaaw bi ay jàmmaarloo yu metti doxee ci diggante marchand ambulant ak agent yu meri Dakar Plateau yi ñu denk mbirum opération de déguerpissement yi tey ji takk der yi ñoo xëy wàcc ci bërëb bi tere marchand yi ñu lal seeni bagage ci tali bi lalunu ndax lépp la mu mën a doon waxtaan rek koy defal xam nga réew lu coow li bari bari ak adduna bi lu coow li bari bari dañu toog ci taabal jariñu waxtaan déggoo kii jii jiite marchand ambulant yu réewu Sénégal di ŋàññ li nga xam ne moo xew fii ci Sandaga. parce que lu xew waru woon a am lan moo xew diggante agent yi ma agent yi Dakar Plateau ak marchand ambulant yi mal compréhension rek la. ñëw gars yi dañoo ñëw pour déguerpir am ful bi nga xam ne ñu njëkk jiitu très respectivement respecté gars yi di leen dana jël leen seen bagage gars yaa ngi jël seen bagage ndànk mais dafa am ñeneen yi nga xam ne boo yi nga xam ci agent yi foofu la coow li ji la coow li ji jóge marchand ambulant li ñuy sàkku ci maire Aliou Ndoye mooy rek mu dawal mànde si seen diggante. ki nga xam ne moo fi nekk di Moussa le maire lu da ñaan appel xamal ko ni sa njaboot la ñu nekk ci réew mi ànd ak ñoom fii yàgg na noo nekk ak moom waaye amul problème boo xam ne marchand ambulant jàppal na ko Aliou am jàppalu marchand ambulant yi dara. seen bëgg-bëgg mooy kilifa yi may leen diir goo xam ne. dañuy woyal rek seen njaay si mbeddi ndakaaru yi fileeg ñu leen di dugal si bërëb yi nga xam ne moom lañ leen di tabaxal. ñu muñal ñu mais nag ci kaw leen nañ mën a organiser wu kenn du laal ci tali kenn di baare mbed ah kenn du laal ci taabal loolu yëpp nu mën nañ koo d'accord ak ñoom. jàppale ni sous-préfet bu Dakar Plateau docteur Djibi Diallo ni ki démb si alxames ji dalal na délégation marchand ambulant yu Sandaga doon waxtaan ak ñoom rek si lu soxal opération de déguerpissement yii di wéy fii si Ndakaaru Démb Mbaye fu leen sorewul ca marché Tilène fa fay itam seen naataango yi fa daan seen doole daal ña nga jàppal tànk waa marché Sandaga ci rek xeex woowee nga xam ne gis nañ ko seen diggante ak agent bu mairie bu Dakar euh, Plateau ñoom daal nee nañu nag moom fi mu ne faa ñu sumb ay waxtaan bu ko moytu lu nu mel dina rek dem ci yeneen i marché yi nga xam ne nii foofee la ñu nekk. marchand ambulant yi nekk ci marché Tilène ñu ngi naxarlu bu baax situation bi nga xam ne seen i naatangoo yi nekk ca marché Sandaga ñu ngi koy dund. métti na wax dëgg parce que tamit parce que dem fii parce que dem ñu fi nekk état yu fi nekk ak maire yeeg nañ xam ne fii jeunesse moo leen fal ambulant maa ne. mooy nañu dimbale waa ñun ay ndaw lañ quoi di dóor waar nañu dimbali ñu toog joob xam nga ñu toog liggéey ñun ay patriote lañ bi mu méttee dañoo nekk di xeex xeex bu tar. ñoom nag ñu jàpp ne situation bi dafa doy waar fu mu nekk nii jot na nag ñu amal ay waxtaan ci diggante acteur yi nga xam ne ñoom ñoo ko seq. dëggal dem ñun télé war nañu dëggal ñun télé waruñu si lal quoi mais nag waaw mais nag gars yi alfa ñu orienté oto jàll nit ñi jàll ñun ñu mën a tabu quoi waaw mais bu ñu bëgg a yëgate wala dégâts suñu day bilaa day métti lool. ñu naxante gars yi quoi parce que te nii gars yi mënuñu xeex ak ñoom quoi parce que bu dul dara tenue bi quoi. wante nag marchand ambulant yooyu nekk ca marché Tilène ñu ngi sóoraale bu baax ndaxte opération de déguerpissement yi nga xam ne ñu ngi koy amal ci biir capitale bi kenn muccu ci. mën na ko yegg si mais ça n'est pas rek parce que en fait bu fekkee que ne da ngay jaay après yow ngay bàyyi xel comme sa voie bi quoi comme ça nga respecté voie bi. non ñu noonu lu mel na yàgg dañ ko dégg wax dëgg yàlla moom. waaw ñun fan yi la mais xam naa fii yeneen fan yi moom boo ñëwee doo fekk ñu la waaye meer dañuy yëkkati. ñenn ci ñoom nag jàpp ni déguerpissement lu jàddu la wante ñoom commerçant yi li ñu bëgg moo ñu utal leen ay sites de recasement ngir ñu mën a wéyal seen i activités. déguerpissement loolu yoon la quoi pour defar mais tamit tey jii nii ñun tey boo ñëwoon comme mel ne Tilène nga ñëw yëkkatuñu fii nii après amoo foo ñu yóbbu après ñun fuñ jëm quoi ñun tamit xam nga dañu nekkawaat defaat lañu doon def nekkaat ci yeneen xam nga li ñu bëgg itam mooy ñu taxawal ay centres commerciaux ci bépp marché bu nekk ci biir dakaar loolu dina tax ñu mën a moytandiku genre problème yi. ba tey lu la opération de déguerpissement yi jàppale ne kuréel gi ëmb commerçant yeeg artisan yi nag ñoom ñee fi ne nii ña ngay wax daal état bu Sénégal wàññi loxoom bu baax bu ko defee daal jaayante doole gi mën a jeex waaye itam ñu dimbali rek ñi nga xam ne les marchands ambulants yi ñu mën a wóyal seen liggéey loolee nag ngir mu antu faaw rek ñu toog waxtaan na si pexe. commerçant yi ak artisan yi dañu am cër bu rëy boo xamante ni nii dañ ko am ci développement économique gu réew mi. jamono yii ñuy gis yenn côté yoo xamante ni nii ñu ngi fay bunduxataal ñi nga xamante ne ñu ngi exercer li ñuy tuddee marchand ambulant ñeneen ñii di exercer loo xamante nii artisanat la. te nag dama jàpp ne réew bu fekkee ne da nga si nekk nga ne da nga ko bëgg a ñu ne la ah yow kat sa économie presque 70 pour cent de l' économie. secteur boobu nga tudde informel moo koy drainer bu boobaa jàpp naa ne danga ko war a jàppale mais waroo koo fekk fa mu nekk ne da nga koy dégager ñun nag suñu taxawaay ci mbir mi mooy bu fekkee ne jafe-jafe am na dama jàpp ne solution war naa mën a am addu ci weneen ponk bu nga xam ne itam xone leen ko laataa ñu bu caatal gi ONG euh, Jamra bu nga xam ne Mama Tàggee moo ko jiite ñoom ñee nag nee ñu daal Sénébar yu ni muy ñaay ci Sénégal jot na nag ñu xoolaat ko tax nag ñu sàkku ci état bu Sénégal moo fexe rek nu mu diisalee nag atu kaso yi nga xam ne dañ ko faral di leen ko gàll ci seen ay ndoddu saa bu ñu gisee loolee nag ci seen i biir yi loxo nee na daal loolee buñ ca tënkoo mën naa am mu wàññeeku waaye tam da ngay xaar Euh, lekk ñu nag kàddu yi nga xam ne ba woon na ci waxtaan ñu sumboon ci jëm ñaajoo euh, ñeel coppite yi nga xam ne namoon nañ ko indi ci wàllum yoon. Jamra dafa daal di rek mel ni kuy alerter ci li nga xamante ne nii moom la daal di jot ci xibaar bu ñu sukkandikoo si seen communiqué bi lee dafa mel ni ñu bari dañoo tàmbalee dox si suuf ngir ñu xool ana naka lañuy def ba daal di daganal njaay ak lépp loo xamante ne ni tuxum sinébar la fii ci réew mi ñoom ñu leen nag di xamle nii ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy xeex ngir rek ñu daal di daganal njaayum sinébar boobu loolee ci réew mi ñoom liñ gis mooy li ni mel buñ ko daal di tere lu muy jur ci ci yàqu-yàqu moo daal di ëpp Jamra nag daal di teggi loolu ba mu set wécc buñ sukkandikoo ba tey si Mame Mactar ak organisation bi mu àndal assise yi nga xamante ne ni moom lañu daal di def ci justice bi ci weeru mai bi weesu fële ca centre conférence internationale bu ab Abdou Diouf ca Diamniadio loolee doon na lu am am solo ci lépp lu jëm ci wàllum justice fii ci réew mi. tax na ba ñoom ñu jàpp ni képp kuñ munti jàpp ci njaay mi wala sax tuxum li nga xamante ni moom mooy Sinébar yoon dafa war a def rek liggéeyam mooy ñu teg la loxo daal di lay tëj ngir képp ku jugati ngir def ko su xalaatee li ko ci a fekk dina tax mu daal di bàyyi. ci atum 2007 gouvernement Abdoulaye Wade daal di woon changé stratégie yi moom nag mu meloon ne ku bàyyi woon ñi nga xamante ne ñoom ñooy produire boobu le chanvre indien rek daal di jëmale si ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo koy daal di jënd gouvernement bi nag ci jamono joojee daal di voté loi Latif Guèye ne mel nag jamono joojee ku si yoon tegoon loxo rek fukki at lañ la daal di tëj loole nag bokkoon ci li nga xamante ne ni taxoon na ba prison sénégalaise yi daal di fees àdd ci wàllum tàggat yaram wax na ci waajtaayu finaalu coupe du Sénégal nga xam ne ni ki ëllëg lañ ko fas yéene amal jàppale ne nag académie Ferry bu Louga ña nga wajal seen bopp bu baax a baax ne leen daal fi mu ne ni lim nga daan nañ koy takk ba noppi fi mu ne daal lu ñu bëgg moo di ànd ak seen ay supporters wane xarañteef gu mat sëkk ne leen daal bés bi dañ ci xar seen tànk tubéy académie les Feux de foot ñoo ngi waajal final bi nga xam ni mooy dox seenub diggante ak Mbour Petite Côte ñoom ñi nag noppi naan ngir indi ndam li si diwaanu Louga bu nu sukkandikoo seenub côte. alhamdulilah on est au complet bu dee wàll jour yi la je pense qu'on est au complet il faut ñu xam ne ñaar équipe bu club amateur lañ ci terrain yi nañuy fubal. bon j'ai dit tout à l'heure qu'on va s'adapter à les situations raison pour laquelle suba peut-être ci heure bi daf ñuy fekk deni béram on va s'entraîner là-bas. ñu koy préparé bu baax pour jéem a waa Louga indi indi ndam li fii incha allah. supporters yi nag seen côté ñoo ngi waajal mobilisation bu rëy ngir dooleel doomu dëkk bi mobilisation bu yaakaar ne Louga rek la yam étudiants nekk Thiès ñu ngi dégganteeg ñoom étudiants yi nekk Mbour Dakar Kébémer partout. stade incha allah cinquante ñu ngi ñaan yàlla quarante mille yëpp nekk ay lugatoires te am nañ ci yaakaar parce que suñu inscription ëpp na loolu. ngir jàppale équipe Louga bi nag maire dëkk bii di Moustapha Diop daal na indi. dinaa jël une enveloppe de deux millions francs CFA jox leen ko. danaa jël également dix bi jox ko. mu nekk rek ay jëf yu am solo ba tax njiital académie yi di ko lu les responsables politiques à Louga yu bëri jàpp nañ si ensuite population luga lougatoise jàpp nañ si ba avant cela ñun ci suñu moyen bopp la doon demee donc su ko amee renfort alhamdulilah loolu ñu am daan ko organiser ba mettre xale yi daan d' excellentes conditions incha allah. final coupe du Sénégal nekk final bu am solo ba tax Louga yëpp noppi nan ngir dooleel seeni ñooñ ngir ñu jëli ndam lii indi ko si diwaanu Ñambur. addu ci leneen du ñu ne leen ko ci bopp bi Guy Marius Sagna nekk député ci parlement bu CEDEAO jàppale na nag yëkki na ay kaddu daal dafay wax nag lu ñeel lekk daf jafe am ci diwaanu ko Guinée ak doom aadama yu ca faatu bu naa coup d'état wa itam wax na fa yeneen i xew-xew yoo xam ne moo mujjee am waaye bu mu ca noppee daal na yëkki kaddu itam addu ca Libéria ak la fa xew waa sàkku ci CEDEAO mu am ab taxawaay yu am solo woo xam ne daañu ko indi ci réew yooyu bu ko defee daal ñu mën a nekk ci eh, jàmm mbokk yi jaare fi buur jotaayu xibaar yi jaajëfal leen bu baax ci dellu bi ànd beeg 7TV ci kanam tuuti mu daaw njaay na dalal ganam ci biir 7TV soir bu ci noppee da jëbal la ngeen Germaine Diouf mu dikk ak yéen ci xibaar yi ci nasaraan jaa ngeen jëf